bismillaahi rahmaani rahim ñu del siwaat ci nettali wala waxtaan yi ñu toll ci waxtaanu téeméer ak fan ak juróom-ñett soxna Faati Jara radiyallaahu taala anha nee na Sëriñ Tuubaa xaada lahu laaw maxtaar lahu na ko bi ma nekkee ci tukki bi ba war a ñibbisi dama xëy julli fajar muy suba ba noppi yonante bi sallallaahu ni ma liggéey bi mat na ba setee ma génn lu mbooleem gaal ya ca néeg ba buub lu néeg ba taal fa cuuraay def fa laj koloñ booba ka jiite sol daar sa foofa ma nga may gis di reeree ju metti ngir li ma nuru koy tuxu te gisul menn màndarga mu may tuxal si tuut ndaw fekk ko foofee aku xel xel mooy daw yu metti jox ko aw kay ni ko nee nañu ngeen puus mbaam puus gi mbaam puus gi wax ko xëy na la bëgg a wax wala la fa am booba yóbbu yére sëriñ bi ca gaar ba bu fekkee saxaar gi jiitu na fa sëriñ bi nag ku ci amoon genn ndombak tànk ndombak tànk mooy garaat des na ko tekki mu waaru lool daal di daw jëli mbaam puus ga ñu teg ca yére ya ma jàpp foofe ba ñu àggee ca gaar ba ma julli ñaari rakkaa door a dugg wér na lu mel nii xëy na du ñàkk soxna si moo ko doon laaj sëriñ Tuubaa xaadalaho law maxtaaralaho wara daa jékki-jékki di ko nettali ci biir nettali bi danañu gën a xam li sunu borom subhaanahu wa taala di wax ni lépp dama ko wutal ay àpp inna kulla shay'in xalaqnaahu bi xadar su ko defee bu àpp boobee ñëwee fàww loolee am sunu borom nag li muy sottal ci mbindéef yi la koy sottale ndax moo leen moom wa ma tashaauna illa an yasha allah loolu sëriñ bi def ci néeg bi dañuy jàngal war ma ak teggin ndax wóor na ni ko foofee ñi fiy nekk duñuy jullit waaye liggéey yi mu doon def foofu te ñuy liggéey yu màgg lay wormaal ba tax muy def loolu walaaw axlam ñoo ci nettali téeméer bi ak fanweer ak juróom-ñeent soxna si radiyallahu taala anhu nee na bi sëriñ Tuubaa xaadalahu laaw maxtaara lahoo ñëwee Daaru Salaam woo na ma bis ginnaaw gee ni ma bi ma nuyoo moom ba noppi mu ni ma tukki bi li ma ci ëndaale mooy xéewal sunu borom yépp subhaanahu wa taala kon yen ñi wax ni man ngeen andal xewal gu ci ab julit wara am am ngeen dana leen ko jox lu ngeen lamb daju leen ko ma dox seen digg ak mom aduna nak da gatt ba xewal yep xaju fi waye lu fi julit wara am dana leen ko jox lu ngeen lamb mu dër wacc leen ko te xamni ab julit da ko wata am lu waru ta am may dox sa ak mom. ndax waxtaan wi soxna ci kep lay waxal wala murid yep serigne bi da wax ni yen ñi ñi wax ni ci man ngeen andal kon murid yépp ñoo ko tax di wax sëriñ bi nag xaada la wala maxtaara la woo daa bëggal murid yépp saxaadata daare daa bëggal murid yépp saxaadata daare moo tax lépp lu leen koy xañ du leen ko jox ba tey sëriñ bi leera noonu ci biir waxtaan wi ni ñuy xamee ak tànnam loolu moo di li ñuy wut bu jàppandee lool te amul benn nax-nax ñu xam ni lii lu mu tànn la ci ñun bu fekkee jàppandiwul nag ñu xam ni nekkul lu mu tànn ci ñun wala waxtu wa ak واختر لي الأحسن في كل الآيات واجعل حياتي به خير آيات واكتب لي اليوم حلاوة تدوم في كل ما اخترت يا باش الخادم مريدي نك دانيو ووتا لول كوتي ني اك لا گن موم لي تخ جانغ رشيد لو بري ام سولو تي ام مريد داكوي خمال اك تان ديكو نيهال تي موم ولا اعلم ني نيو تي نيتالي تيمير بي اك نين فوك سيرين توبا خاد الله مختار له تي نجاريم مسنا يوني لاج كولن كوني واخ فار njëgu ñaari biteel la ko joxoon bi mu yeggee naar ba juum jox ko ñetti biteel mu ñëw fekk sëriñ bi di waare muraam jox ko benn biteel ba fekk téerab alxuraan ma nga ca wetam mu génn téere ba teg fee fab sa jaada ga ko ëmboon ubbi benn biteel sotti ko ca jaafir bi ma moo jii def kaamil bi mu sotti ca la ca sànni ko biteel ba sànni biteel ba ca naaj wa far bood raam jox ko beneen biteel ba ca des sëriñ Tuubaa xaada lahu law maxtaara lahu jël beneen kaamil bu nekk ci jaafure dindi teg nee sa jaada ga ko ëmboon mu sotti ca laj ko lañ ba mu xaaj moom biteel bi mu sànni ca naaj wa moom sa jaada bi la sànni ca naaj wa jël jaafur ja sotti ca la ca des sànni ca naaj wa moom jaafur ji daal di sànni biteel ba far bood raamaat jox ko beneen biteel sëriñ bi ne ko xër xër mooy sànni gu am doole ni ko far boot boo foree lu baax bootal boo foree lu bon waccal xañ na ñetteelu biteel boobu mu koy jox te moomu ko moo tax ma wax lool dama laa bëgg a dénk loo xamul bu ko wax loo mënul bu ko def loo moomul bàyyi fa xam nga loolu lu moom mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko bisimilah baax ak barkeel ak bërile yooyu lay jur sëriñ bi mel na ni laaj ko lañ daawu ko sotti ci biir kayit gi gis nga noonu mu ko sottee ci jaafure ji ak li ko am woon ndax loolu mooy waral kayit gi du gaaw a yàqu te it sëriñ bi bind yi mu daan yor yi ci ëpp daanaka mbind loxo lay doon nga xam ni boo ko sottee ci kayit gi mu far ba tey maanu sëriñ bi xaadalawoo law maxtaara lawoo akuk sàmmonteem feeñ na lool ci jëfin wi ak xam gi mu xam yu nëbbu buy su ko defee li mu mujj wax nag ni ko xam nga loolu lu moo xëy na da koo bëgg a wax xam nga boo defee loolu lu mu lay jural mu ni ko déedéet mu ni ko baax ila axirihi ndax kuy def loolu mu wax faawu mu baax barkeel bari la insha allahu mën naa amit ki doon nettali moo am lu mu waxaalewul wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeen fukk ak benn soxna faati ja radiallahu taala anhu nee na juróom benn nit la sëriñ tuuba xaadalahu allahu maxtaara lahu njëkk wax ndigalul jumaaxi tuuba ca daru salaam la wax ak ñoom ci benn néeg muy maam Cerno sëriñ gaawaan sëriñ Mbàkke Busa sëriñ Mouhamadul Moustapha sëriñ Balla Coro sëriñ Masamba radiallahu taala anhu door a dem gànnaar wax na leen ko doog a dem gànnaar loolu man li ma ciy dégge moo di liggéey bi ñor na sëriñ bi xaada lawo law maxtaara lawo ndax ñooñu mu woo ñëpp kenn ku ci ne doy na ak kilifa te it gis nga ndigal li ni mu soreek tàmbali gi te it gis nga ndigal li mu tàmbaleek sore gi te moo ko bëgge noonu nga xam ni moo njëkk ndigalul jumaay njaareem ba tey loolu sëriñ bi def danañu jàngal mbirum diisoo akuk amam solo wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeent fukk ak yaar sëriñ Touba xaada lawo law maxtaar lawo bi muy nekk Gabon ak na am na tubaab bu mësa ñëw ci moom ànd ak xaj am na ñu ni da doon fóon gi sëriñ bi nekk kayit gi sëriñ bi teg sëriñ bi ni ko bu ëllëgee boo fi ñëwati bul ànd ak moom waaye mel na ni déggul li ko sëriñ bi wax ca suba bi sëriñ bi jullee ba noppi yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ni ko laayee fulmaa ya ba ubbikum rabbi lawlaa duhaaukum def ci ak xasida xay na mooy xallabtu kulli li karimin wa baxaa tawbiixa ikramin wa xultu bax baxaa muy xasida bax baxaa ba mu ca nekkee kookee ñëwaat ànd ak xaj yu bari waaye bu ci wut si sëriñ bi xaada lahoo law maxtaar lahoo mu wiccax ko xalima ga mu tàkk ba yépp jeex loolu mooy gàttal gi nettali bi nag mel na ni sëriñ Mouhamadou Lamine radiallahu taala anhu mu sëriñ Touba xaadalawoo lahu maxtaar lawoo nettali na ko ci ab téere waaye yëraguma ko bari na loolu ay waxin waaye loolu dañuy xamal sax gi ak am gi rek sëriñ Touba xaadalawoo lahu maxtaar lawoo du lor kenn boo gisee lii mu def lépp li muy tegtale moo yërmandeem ndax nee na ko bu ëllëgee bu fi ànd ak xaj yi mu dëgër bopp ba tey gis nga ne yonente bi sallallahu taala wa sallam moo ko digal lii mu door koo def inna al mujrimina muntaqimun wala alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak ñeen fukk ak ñett sëriñ xabibu ak sëriñ muhammadu njaaña sëriñ tuba xaadalawo law mas na leen a wax waxtu wu jot na ngeen ko jàppal njàpp mu tooy te julli ko ca waxtu wa kon ma warlun leen seen lépp njàpp day raxas ay bàkkaar julli itam day fari bàkkaar sëriñ bi nag képp ku muy digal dara dana xool ba xam la xam itam sab tolluwaay fi mu ne njàpp ci waxtu wu nekk ak julli julli juróom ci mbooloo dañu ko tàmm ba xaw koo wayafal waaye amul lenn lu ko gën a rëy su ko defee am na ci boroom ngir yi ñoo xam ni dañuy wax ni jàpp daa war a sëx ci julli gi ndax li sunu boroom wax subhaanahu wa taala isaa xumtumoo ila salaat lii sëriñ bi wax nag dëgëral na boroom ngir moomu xam borom ngir mu wax loolu waaye ñun ci ngirum Malik radiyallahu taala anhu la ñu digal ñu ciy jaamoo yàlla subhaanahu wa taala ci ngirum Malik la ñu digoo la ñu digal ñu ciy jaamoo yàlla subhaanahu wa taala te moom nangu na ba ñu sësale am njàpp ci ak julli nga xam ne da ngay jàpp toogaat waxtu door a julli lu mel ni ndigal yii itam li ñu ci war mooy ku ko man nga di ko def te xam ni mooy li gën boo ko mënul nga dellu ca la mu la digal ci roy imaamu malik radiallahu taala anhu wala alam ñoo ci nettali téeméer bi ak ñeent fukk ak ñeent sëriñ tubaa xaada lahoo laaw maxtaara lahoo mas naa am woo mag ni ni leen digaluma leen dama leen di déggal ni leen sunu borom digal dégg déggal mooy jottali digaluma leen dama leen di déggal li leen sunu borom digal sunu borom neena kuma jaamu may sa bur sunu borom neena kuma jaamu nit may sa bur sunu borom neena aljana man dong mako ko kenen ku am aljana amut sunu borom neena sama aljana ku jaamu du fa dug man ci sa bop li ma leen ciy man ahmadu moy jaamu len yalla jaamu luma len yalla sa bop lay jaamu jaamul jaamu len yalla jaamu luma len yalla sa bop lay jaamu jaamul jaamu len yalla jaamu lu ma jaamul yalla. yowmal xiyaam du ma fa taxaw di layal kenn mbaa may layoo kenn ñaari baat la ma sama boroom di laaj fa may taxawal fa muy taxawal boroom jamono yépp bu ma fa taxawalee ni ma ahmadu na nga def jaam yi ma ni ko bind naa wan leen wax naa ñu dégg def naa ñu gis sëriñ bi waxtu wu nekk ak xeetu waareem tey nag daa ñëw di ñu xamal màggug sunu borom subhaanahu wa taala di ñu leeral tam ni jaamu yàlla képp moo yoon àjjana jaamu yàlla nag ga ca gën a màgg ginnaaw julli juróom mooy jàng alxuraan ak xasiday sëriñ bi ndax xasida yi sax mooy jaamu yàlla gi gën a màgg li ko waral mooy boole na njariñi jaamu yàlla yépp loolu moo ko wax